lëkkaloo ki nga xam ne iqtisaad ak culture dañ ko war a lëkkaloo comme ay seer mu xamal nu ci wàllu pratique ne am réew mënta développé ab société mënta développé développement bu ànd ak indépendance ak économique du dafa basé wu ci propre culture loolu moo waral mu waree modèle boobu ci biir njaareem xoolal njaareem léegi mi ngi nekk ci centre urbain Seexal Xadim tenir compte ci réalité milieu social bi mu nekk xam nga ay ay ay ay dëkk wër ay ay suuf su jeex moo wër wër njaareem àll bu yaatu mais toolub Serigne tubaa ci li wër njaareem kenn gisu ko parce que dafa tenir compte ci réalité yi milieu social bi mu nekk parce que dëkku taax la nekk kon nag na adapté wu ak activité yu dëppoo ak loolu xool biir kër nga ñaata atelier ñoo fa nekkan mm-hmm. atelier ministère si suñ boo xam ne buut bi garab gi lañuy dagg ca àll ba indi ko am na équipe boo xam ne ñoom ñoo koy traité taaye taaye ko ba mu kii ñu dëw diw ko diw gi ñu ko daan diwee daawul xar wëttéen mii danaa ci ñëw saalu wëttéen bi moom lañ daan toj segal ko nal ko diw ga moom lañ ci daan diw suul ko ci kii lu war a mat juróom-ñetti fan bu ñu ko génnee du du fett du far du def la la loolu la kii boo xam ne foofu lañ foofu lañ ko inventé woon buñ noppee doo ko jox suñ Cheikh Fat ko ñoom ñu liggéey ci lañ ci doon liggéey ci ay lal ay tablette ay armoire yoo xam ne leen lu nekk sëriñ bi moo leen di indiqué ni ñu ko bëgg a defee ni ñu ko bëgg a lépp mu am sibqa islamiya cordonnier yi ba nekk ci biir kër ga sëñ as gane moom wax ne sëñ Modou Mamoun moo ko wax ne ko cordonnier yi ba sëñ ma sàmba sunu bàyyi moo ko jiite ma topp ci moom sëñ Modou ma sàmba topp ci sëñ xaas topp ci mu ne ko gàtt yi ñuy rey ci biir kër gi yépp buñ ko feesee ñun lañuy jox dar bi ñu def ko ni ko wuudee def ñoo koy lëxundi traité ko ba akal maxtume yi ak jaafare yi ak dàll yi sëriñ bii sol ak yiñ koy defar bu di ko jox gànn yi fiy ñëw lépp noo ko doon liggéey kenn ku nekk mu wax ko lam lam lam ca doon def loolu lépp pour jàngale lépp lu ci nekk yor sibra islaam yi ci biir kër gi waaye boo ñëwee ci wàllu col ga saa koy wëttéen yi lañuy indi saa bàjjen yi ñoo koy def ay mobile ay poqe bu ñu noppee def ko ay sor am na modèle pour jigéen am na modèle pour góor bu ñu noppee maanaa cuub ket yi ci biir kër gi ci njiitul soxna Fatou ko ay eh, soxna Aminta Jobbe mi ngi fi cuub pour góor cuub pour jigéen turki njaareem foofu lañ ko créer kooku fi gis muy col goo xam ne dafa tëppoo ak li bi rasulullah yi doon sol ab jullit war ne mel te ci biir murit gi la juddoo keneen ku ko kii kenn ku nekk foofu nga foofu nga ko kii demal nañoo dem ba wax ne bindikat yi wax nañu ne jamonoy seexal xadim li tàmbalee mille neuf cent eh, mille li tàmb li tàmbalee mille neuf ba bi muy génn àdduna lu ëpp soixante pour cent ci li way njaareem di sol ci biir kër gu mag lañ koy liggéeyee maanaam wëttéen yi foofu lañ koy inde fa lañ koy rabbe jigéen ñi am nañ seeni sor muy dara daraay rabal du jigéen am na jàng ji ak njagamaar yi ay taybaas yoo xam ne rabal lay doon góor ñi itam am nañ seen istilu bopp bu rabal am na cuub gi palmaan am na rombal am na sàmba seen bi am na lépp ci biir kër gi muy loo xam ne islam pire la waaye murid piir la léegi nag loolu ci côté yooyu yëpp lum loo sori sori su sëñ bi waxee nga gis ne wax joojee wax suñu borom la wax yu dëgg la wax yu jariñ la nga topp ndigal loolee loolu moo waral nu àgg fu nga xam ne keneen àggu fa te lu gën a jaar ci yoon woowu gën a dëggal yoon woowu Sénégal di gën a dem fi mu li nga waxee te mooy dëgg lii fi am murid yi def ko fi amul feneen fu am ci Afrique te jàpp naa ne ab tàmbali la am na lu tuuti rek exemple bu ci loolu lépp sëñ tubaab mooy organiser lu ko neex ba tax na fi ñu toll waxtu wu ne am na déroulement muy defam ci bëgg-bëggu sëñ Tuubaa bu ñu seetee liggéeyu masalit bi ni nga xam ne ni la. ñi nga doon lim léegi ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñooy ñi ëpp xaalis ci yoonu murit tey ay taalibe yoo xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek lañ bëgg ñu xalaat ne nun kat liggéey bii danoo war a daje nun ñi taalibe sëñ Tuubaa yi defar ci lu nga xam ne kenn mësu ko def ci mbooloo loolu dafa am solo jàpp naa ne mooy tàmbali li nga xam ne murid yi man nañ koo def non seulement ci liggéey waaye organiser seen bopp ci biir économie sénégalaise ba nga xam ne ëllëg gi si biir leneen luñ soxla noonu lañ koy defee buñ organiser si te noonu lay yombe loo tax ma jàpp ne li ñu def dafa bokk bokk ci bëgg bëggub sëñ Touba bëgg leen a gën a delloosiwaat ñu xam laka lañ mën a def ndax ba nëgë nii dañoo tasaaroo dispersé wu kenn ku ne di def pour la première fois mu di daje ay moyit yu amee alal ñu jàpp ne ci ñëpp alal ñu jàpp ne xëy na danoo war a dajaloo liggéeyal Sëñ Tuubaa nan xalaat buñ dajalee ñoom ñëpp nekkat secteur sàngam ak secteur sàngam dañ cee war a dajaloo ànd ca def ca lu nga xam ne kenn individuellement kenn mënu ko ca ba mu gën a taxaw def ko ci industrie def ko ci construction def ko domaine bu ne buñ ko fa defee li ma wóor wóor ñëpp koo gis loola képp ku bëgg Sénégal du dox dana la tiital lii rek Masalik bi yaat nañu bare bari ci lan la waa Kër Sëñ Touba mën a def loolu tax sa wax ji am solo yaakaar naa lu mat a gën a waxe la ba murid yi fiñ toll ñu gën a xam nu ñuy gën a mën a organiser ba gën a mën a dajaloo gën a dajaloo ndax ndax adduna si léegi économie adduna si ak mbooloo ko yor kenn mënu koo yor benn entreprise am na yoo xam ne mënu koo def looloo tax ñuy gis lu bare bari ci réew mi léegi bu amee tubaab yi lañ koy jox ñoo ko mën a def ndax entreprise yi par benn yi nekk Sénégal yu ci bare bari mën a dugg ñu fa àgg waaye imagine leen ñoom fukki nit képp ñaar fukki nit fanweeri nit ci ñi nga xam ne ñoo jiitu ci économie Sénégal dajale woon fa ci benn secteur fas fa yéene def lu nga xam ne keneen mënu koo def boobaa amul benn entreprise buy jógee feneen buy mën a def lu nga xam ne mënuñ koo def te loolu mooy njariñal Sénégal kon nag moom Sëñ Tuubaa danoo daa da yàlla danoo dimbalee sëñ ma dajale na boroom xam-xam yu bari fii ci jotaay bi ñu jàllale fi xam-xam bu baree bari te moom li mu fas yéenee def ci ak dundam mooy fépp foo ko seen muy dox ci liggéeyal Serigne rek la bëgg di dox nga xam ne ak dundam alalam ak jotam lépp da koo may taalibe yi Serigne loolu nag ku taxaw taxawaay bu mel noonu di dundale nii waajtaayu màggal defe naa nu ñu ko mas di dundale am na solo waaye dundalin wi wenn ëpp ko solo te ñëpp war nañ ko cee roy mi ngi sant bu baax baax ci teewaay bi te di ci bég lool ñaan borom bi subhaanahu wa taala gën a yàggal taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha gën a yàggal itam taxawaayu njabootu Serigne Touba gépp ndax Serigne Touba lim réussir kenn da koo réussirul ci àdduna am na ku bind ab téere tudde ko alxaaliduuna mi a maanaam di ci wax téeméeri ñoo xam ne ñoo gën a ràññeeku ci àdduna xam naa bu ko doon bindaat tey bu ñu ko waxee Serigne Touba mu jàng ko ba xam ko moom lay def numéro un ndax ginnaaw ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàllee te eh, mbokk yi doon waxtaan fii léegi wax nañ ne ak yonent du ak njàmbaar suñ boroom a koy tànnal nit waaye nag ku jékki-jékki laxasaayu def li Serigne Touba def ci kaw suuf réussir ko ni mu ko réussiré xuus ci àdduna ba jàll te taxul ban bant jëmu ko ku mel ne Serigne tubaa doo nga ko mas a def te yaakaarutuñ ni kenn dana ko def ginnaaw loolu nag di ko feeñal ci xam-xam di ko feeñal ci njàngale di ko feeñal ci yar di ko feeñal ci ay comportement loolu la jotaay yii di jariñ ndax màggal cant yàlla la te ak cant nag moom day feeñ ci ay wax waaye day feeñ ci ay jëf te mooy feeñal li Serigne Touba am fax susil xasasa la alquran wax kon nag nettali ay xarbaaxam ak ay jaar-jaaram akum njàmbaaram day yokk ak waa këram yokk ay taalibeem njàmbaar ba fu ñu yëkkatee ci àdduna ñu xam ne ñoo fa man bu ñuy wax bu ñu jëf ñu xam ne ñoo fa man bu ñu liggéey ñu xam ne ñoo fa man bu ñu jàng ñu xam ne ñoo fa man bu ñu bëgg yonent bi ñu xam ne ñoo ca man lépp lu ñuy def ñu xam ne ñoo ca man te loolu feeñ na ndam yooyu yal nay gën a tegaloo yal nay gën a jëm kanam yal nay gën a sax maa ngi lu baax sëñ Abdou Samad xam naa jot li la ay kàddu ci bis bu mel nii ci kanam sa mbokk yi fi jot a ñëw ak boroom xam-xam yi fi teew dina jafe waaye buñ junjee rek danañ xam lenn lu baree baree bari ci li nga bëggoon a wax bisimilah. maa ngi dégg bu baax di wax lu baax di neex rek moo tax ma dafa xaw ma ne la soj rek waaye bu ñu leen wax may waxandoo kenn waaye baat bi neexul rek moo tax waaye cant gi daal moom foofu takk rek weesu na ko ndax suñu taxaal tax wàccoog noonu li ma koy wax rek waxtu ne. lu jiitu lii muy nekk sëñ Tuubaa sax laa ko daa wax ne ko suñ kër bopp gii nga xam ne moom fi li am sëñ Tuubaa lépp ci lañ ko amee muy kër sëñ Sohaybu moom yàlla dafa def mooy taawu kër gi sëñ Sohaybu da ko jiitaloon ci kër gi ci léppam loolu it gannaaw sëñ Sohaybu sëñ Seex wéyal ko def ko muy kilifa kër gi kon nag noonu mooy seen kilifa ci lépp gannaaw loolu mu far doon kilifa ak murit yëpp gën gënoo yilifati li jiitu loolu lépp nag ñu am ak coxeel gu ñu dox suñu diggante te am lu mu àmbal loo xam ne it jomb na ma ëpp na ma tam xam ko te ñi ko jege ñëpp xam ko nga xam ko kon nag jotaay bi yaakaar naa suñu maam Mor doom ak suñu aboom yi bu fi toogoon doy na sëkk ñu ëpp na waaye li la xolam ak coxeelam ak yéenam ji ëpp ci nun ak ci murit yi rek moo xam moo waral mu yebal la kon nag bi nga egsee rek. dox yi doon root rek war na ne xéewal ñëw na li ñu doon def lépp nangu nañ ko Sëñ Tuubaa nangu na ko jërëjëf Mbàkke yàlla yàgg lool ñu ngi siyaare bu baax tey sant ñëpp ñëpp ñëpp jërë ngeen jëf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci turu Serigne Abdou Samad moom Serigne Chambou ak ci turu kilifaam gi fi teew Serigne Saaf nee na xam naa mu ngi lu bu baax baax ci ñi nga xam ne ñoo waroon a yëkkatiwaat ay kàddu nee na rek gis ne rek guddi na ca xëy na bu ko sàkkoo ci ñoom it danañ ko ko defal waaye boobaay toggoo ab coono lay doon ca daanaka lu dul doy lu nekk loo ca am mën nga koo doyloo nee na kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ñëpp li mu yittewoo woon ci bis bi rek sant na yàlla ndax am na ko ndax ñi fi teew xam na ne nitu qualité lañ yoo xam ne caaxaan du leen yëkkati ñi teew ci jataay bi boo ko jàngatee nee xam na ne ñoom caaxaan du leen yëkkati kon nag wuy si gi ñu ko wuy si ngir lim woote kon gëmee na ci jàppee na ci bu wér a wér ne lim doon woote alhamdulilahi rabbil alamin am na ci lim bëggoon rawat na kilifaam gii nga xam ne moom moo ci teew nee na nag bayiwul kenn presse bi fi teew ñëpp it noonu nee du ñu lim ndax bu ñu limee mën nañoo juum man nañoo bañ a matal ndax yi ñu bindoon ñu ngi gis muy dolli ko ñi koy def en muy télévision yi du may euh, duñu ñu lim ndax xëy na euh, ak site internet yi ak rajo yi yëpp ñu ngi koy ñi koy def internet ñi koy def euh, en direct ak ñi nga xam ne ñoo ngi koy jël fas yéene ko tegaat ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag lu mel ni ki Serigne Sam Bousso li mu waajaloon ci arab des na ko jël moom it mbooleem fu mbir yi jàll mu jàll ci li nga xam ne sëñ Abdul Muhamin waajal na ko ci àngale incha allah taala ngir mu résumé jataay yi dañ ko jël ci ñoom fekk leen fi ne jël ko ngir mu mën a tasaaroo ni nga xamee noonu la jataay yi tasaaroo incha allah taala waaye nee na sant ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ndaw di jéggulu ci guddee gi ndax bëggoon na balaa minuit rek mu jeex waaye ne dafa xeroon ci ne bëggut di téye kenn ndax am na ñoo xam ne xëy na bu guddee mën nañoo rocc ko moo tax mu ne woon yëfi njóobeen ni nañ ko jiital ba nga xam ne njóobeen bu ci bëgg rocce ko dana yomb ci yow kon loolu it lu ci am solo ndax bu ñu nekkoon ba àgg ci waxtu wi ku nekk mu lay téye naan mënoo ñàkk a xaar yëfi yi dana xaw a doy waar ci ñenn ñi waaye kon sant ni ñëpp rawatina nañ ñi nga xam ne ñoo doon taxawee waxtaan yi ak leen lu man mi nga xam ne maa doon modéré jataay bi ndax say kilifa rek nga leen def si ñag benn minute nga dese ñaari minute nga dese wax du yàlla loolu ñu ngi koy lu ne jataay bi tëdde woon rek la waaye di sant nag sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Fadilou sëriñ Chouaïbou ak sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Abdou Samad bi nga xam ne sëñ bi mu xalaatee lii woo ma ne ma soo jullee gee ba noppi nga ñëw fii mu ñëw mu wax ma li mu bëgg daf maa boole ak ñoom ne ma bépp xalaat boo ci am rek waxtaan ci ak ñoom sant naa leen bu baax a baax coordination bi am na solo trop boobu ba léegi ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ciy liggéey ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ci jàppoon ñëpp nag wax dëgg yàlla kilifa yi comme ci doon ma ne la sëñ Abdou nee na mënoon na bu ma soxlaa na ma wool boppam moom nañ ma ko wax waaye kenn ci ñoom rek wax yàlla ku ma ci wax ba daal rek cawarte nga may woon gu ma gu ma sëkk ngir lan daf laa woo ci loo bëgg daf laa woo ci li nga gëm daf laa woo ci li nga xemmeem muy liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kon nag liñ ci seenu lépp ci ab yool yàlla nañu ko yàlla defal sunu kilifa sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ci wér ca naal yi mu naal yëpp yàlla na sotti ca mu naalaat sottalaat ci barke Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ndax ku ne xam na ne su fi yàggee day incha allahu taala lislaam dana am ndam lislaam dana jariñoo ak dundam bu baax a baax kon yàlla fi yàgg ci wér ak rakkam ak mboolem ñun taalibe bi ñëpp ñoo ngi jégalu ñëpp kon kàddu yooyu sëñ bi waxoon ñu ñu tëje ko jotaay bi wasalaamaaleykum lépp lu ci mate rek wala lu ci manqué ci man la waaye lépp lu ci mat nag ci yéene yu sell yi ko laltaayoon la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ni ñëpp tàll kon sëñ bi ñaan bismillah ñun Mbacke